sa bopp sa bopp boo ko tegee fee mu jël waaw day jël day jël kay. bu ko yëkkati du yegg. borom saa jàppale waa la ñu waay. yàlla yàlla yokk xéwal bi yàlla yàlla def gudd fan wér yaram di nuyu diaspora bi yëpp nag fépp Sénégal nekk fi ñu nuyu rawatina équipe bi nga xam ne fii laa màggee fii fii laa déggee daal fii laa nekkee champion d'Afrique tey ñoo ma gunge entraînement géej mbappat ba arène ba tey yàlla def ma nekk ma dégg daal yi kon man Pikine bii fi juddoo fi yaroo aw ma dudul Pikine xeex bi bëre bi coono yëpp ku leen dudul Pikine am ndam kon tamit aussi fii ma juddoo yaroo fi màggee fi balaa maa sant kenn ñoom laay jëkk a sant gis naa seen teewaay gis naa seen jàppale gis naa tamit aussi ni ñu ma taxaw su ma jógee ci loolu maa ngi si gindigaale ki nga xam ne mooy xaarim seen tey ëppal presse bi daa am moo ci jiitu moo ci njëkk tey yàlla def na lu gën maa ngi koy yàlla xel bàjjen tey amaana sax ëppal presse bi mënoon na bañ a am parce que dem benn moment mu bëggoon ko renvoyer mais kon ci contrat contrat moomu dëgg te tamit aussi euh, dañ nekk ci dernier village boo xam ni mooy yor promotion combat bi mënuñu baax ñàkk bañ a teew mais tey vraiment du ñu war a def dëgg dëgg sax dañ ko wàññi defuñu ko parce que dañu am benn benn naxar maa ngi jaale maa koy jaale Pikine yëpp àdduna bi yëpp rawatina tamit aussi waa këram ak waa Kaffrine waaw su ma jógee ci nag maa ngi nuyu Isaaxa monsieur le maire Isaaxa saa ma gersoo gis ko Isaaxa Diop vraiment ku sonn ci man di nuyu tamit aussi euh, di nuyu Fallou Diagne Fallou Gaye grand Fallou ñu ngi tamit aussi bu baax a baax di nuyu Yes. waaw muy gën a def tamit moo fi nekkal Abdoulaye Timbo. Abdoulaye daw nañ borom lu jaune borom lu rouge. daw nañ ko bële bu baax a baax a baax. Abdou Karim Sall tamit aussi amuñu fayam. mention spéciale Abdou Karim Sall parce que ku sonn ci combat bi ku ci denc coonoom la xaaral ma lépp dara fekkee wu ko kon tamit aussi ñu koy sant bu baax a baax a baax. Ibou Djimbo tamit aussi ñu ngi koy nuyu bu baax sonn ci combat bi jàpp na ci combat bu baax xarit Transal tamit aussi vraiment maa ngi koy nuyu bu baax sonn na ci lu dañ ci maa ngi nuyu ah, baax di nuyu di nuyu yëpp maa ngi nuyu Pape Ngom mag Assou Ngom Souleymane Ngom Khadim Ngom Awa Ngom famille yëpp maa ngi leen di nuyu famille yëpp tamit aussi famille Samb Xayane Ngom yëpp maa ngi nuyu di nuyu tamit aussi samay goro bu baax a baax a baax a baax di nuyu tamit aussi Moussa Diop bu baax a baax sonn ci combat bi la sonn na ma mel kii jàpp di nuyu tamit di nuyu ñëpp di nuyu tamit aussi suma igri ci stade bi ci kaw ba ci suuf jàpp nañu ko teewul booy yu bëri mais yàlla nañu ko na ci ku ci mel ni Doudou Sané ah. nga ku ci mel ni Ratel bu ma limee rek du ñu jugee booy joolaa xam nga digir bi ma nuyu xaali tamit aussi gis naa ko fii xaali mbay tamit aussi sonn ci man maa ngi nuyu ak mais na arrière tuuti caméraman yi ma a kii caméraman yi jëluñu ko. arrière tuuti ñu gis. am na seen kii na arrière tuuti ko ñu gis. mu ngi gën a avancé. voilà. daw nañ bay bëgg a dee. léegi ñu dem trois coow bi mën nañu xam naka ngay waajalee sa diggante ak bombardier ndax yow ak bombardier fii nag te ngeen am nga jaar. waaw ñu koy préparé préparé daanaka. bu dara xel nañ combat bi maanaam ni ñu ko war a préparé lépp lu ñu ci war a def rek def nañ ko ci bàyyi ñu benn détail di ci ñaan yàlla suñu borom moom mu yor ndam maa ngi koy tàll loxo yàlla na ma yàlla suñu borom may ndam incha allah rabbi. combat bi da nga ci yokk poids wala. non non yokk ma ci poids gis ngeen ma poids yokkul moom xam nga naa est-ce que job nañ ñu ci war a job nekk nañ ci poids de forme macha allah daal du nuyu tamit aussi suma kët kañ yi ñu ngi ko nuyu bu baax. Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax parce que may door xale ba toll fii la Bolo tamit aussi mi ngi fii Bolo ku sonn tamit aussi combat bi la maa ngi nuyu waa SK yëpp ko ci jigoo maa ngi nuyu aussi tamit bu baax a baax a baax ak waa salle def sport Gambien tamit aussi aw ma seen fay maa ngi leen di nuyu. ah dinañ ñëw ci nuyoo yi ëmb. mu mel ni da nga am combat boo xamante ni comme ci moom nga jëlee woon euh, roi des arènes bi te bombardier dañu woon jeexaat ndax da ngay jeex wala doo jeex. jeexaat moom mënut a ñàkk foog ñuy jeexaat te dinañ for doom incha allah. waaw léegi euh, bu gars yi seen ñu bëgg a xam ndax combat bi ak sa par rapport ak sa combat bi nga njëkk am ak bombardier est-ce que ni nga entraîné woon ci combat boobu ak ni nga ko fonke woon noonu nga fonke combat bi non bii la bii la ëppee incha allah bii la rawee voilà combat bi moom loolu moom saa ni def ko ba le 27 incha mu mel ni mu mel ni bombardier nee na des ci carrière mu mel ni Bombardier nee na li des ci carrière am dootul dem di jëli ji benn mbër te moom forum la ak lu lamb xam nañ ni forum la arbitre sifflé mbër di ci kaw ndax loolu yaa koy bàyyi xel dégguma la wax dafa mel ni nee na li ci carrière am dootul dem di jëli benn mbër digg géew ba ah day toog la xaar ndax xam nga ma dina dem wala du dem. non combat bi mënuñ lu mënut a ñàkk la day ñëw. non ci micro ngay waxee Sénégal ñoo lay seetaan àdduna ñoo lay seetaan te combat boobu combat capital la bu am bu Bombardier taxawee est-ce que di ko jëli. jàmbaar le 27 di ci woo ñëpp dañ ci bu neex jàmbaar la yàlla ñu yàlla suturaal mu ngi dajeeg ndaanaan dëgg yaa ngi dégg wax bi waaw yàlla ñu yàlla daal may ndam. mais bu buñ fonk la jàmbaar. di nga xeex ak bombardier. lu combat bi laaj rek jàmbaar kuy dem guerre lépp koy préparer. non am dañu bëgg Sénégal yi tey li a open presse bi dañu bëgg xam tey Eumeu Sène lan la war a indil bombardier amoo danta wala kon kenn du dem guerre di wax armes yi nga yóbbu mais ay armes fatales yi ñëw incha allah. mais ñu bëri sànq dañ la jox suñu micro mais dañ ne bu bombardier taxawee Eumeu Sène taxaw combat bi match nul la gën a jege te amateurs yi xaaruñu loolu est ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. waaw bombardier mel ñu noonu jàmbaar la bay jàmbaar loolu bu ko kenn séntu ci combat bi. ñëwal Mamadou Diouf nee na am na deux questions pour Eumeu waxal. waxal mu dégg. waaw. waxal. Eumeu Sène ñu ngi lay nuyu d'abord di nuyu mbooloo bi yëpp ah, am naa ñaari question pour yow benn bi dañu ko jël ci Bombardier mu ne génne na slogan bu bees nee na ku ko dóor abal ko yet bi dóor fayu beneen bi sa ñàkk a teew mbuur samedi bëggoon nañoo xam lan moo ko waral. waaw ñàkk teew bi du leen rek lu dañoo voyage yi xam nga ci diggante bi aussi temps bi xool nañ ko mais duñ mën a fekk mbuur parce que tey boo xoolee ci ñu ngi njëkk a d'accord dem nguur man ci laa bokk aussi du dëgg parce que yàgg na ñëw mais ñëw bu muy ñëw Dakar tamit dajalee lay doon man damay jug dem yi daje ci ci ci ñu daje feneen kon daje la te tamit aussi xëy na noonu la ko yàlla suñu borom tuddee mais tamit aussi amul benn problème waa Mbour yëpp maa ngi leen di jégalu ci ñàkk bañ a teew bi ak Sénégal yëpp voilà te tamit Mbour dafa bëri ay supporters tey sama supporters yi demoon mënu ma wax nu mu toll ma ko daanee dem Mbour nuyu yi moo daan yaayam amoo maa lay siyaar bu baax a baax. waaw dañu gis ne am nga ñaari avance benn bi yow Bombardier benn bi yow Balla Gaye Bombardier nag bi amee ñaari avance première xubu Balla Gaye la amoon wala bi nee na bi yar bi njëkk bi day daal te yow bii mooy sa première xubu sa diggante ak Bombardier nga jóge ci ñaari defet nan nga fas yéenee préparé wu. waaw ñu koy préparé jàmbaar ñu waajal combat bi waajal bu yéeme. bii mooy xubu bi xubu nee na bii mooy xubu bi. yàlla mi am ndam yàlla may ndam. nee bi mooy xupp bi ndax bi mooy ñaari ñaari combat yaa ngi ci ñaari contrat sa digganteeg Bombardier ak sa digganteeg Balla Gaye te bii mooy premier xupp bi. incha allah ci kàttanu mu toll nii Balla Gaye am na yeneen combat yu mu war a bëri après ñu soog a daje. beneen romance boobu na nga ñëwee woon bëri bi carrément ci jeexaay bi ci entraînement bi. ay ma gisaat état de forme boobu est-ce que woon sa diggante ak Gris Bordeaux nga dem koo xaar sa diggante ak combat bi. combat bi lépp la ñuy waajal jàmbaar. mooy lu <laughs> waaw. rek. da nga wàññeeku tax nga wàññi poids bi. bi rek la. bombardier boo bëggee bëri moom faw nga wàññi poids wala. non non di question wàññi xëy na cardio bi liñ liggéey moo bëri rek. waaw liñ liggéey ci combat bi. moo war loolu du dëgg mais nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam jàmbaar incha allah maa ngi leen di kontaan. yàlla ma seen i news waaw. waaw. jàmbaar ñu lay fay. waaw. yàlla <laughs> ma nee ndax ku bi nga xamante ni bombardier joxoon na la ko. ah nee na ndax yaa ngi sóoraale coup bi nga xamante ni sa premier combat bi ngay jël roi des arènes ak bombardier coup boobu la bombardier jox ndax yaa ngi koy sóoraale. non jàmbaar bu ñu toll nii sóoruma loolu wax dëgg yàlla waaw ñaanuma yàlla xam nga di di jël kaay kii demee mais amuñu leen daal lu ñuy ragal ci combat bi du xeex bi du bëre bi xam-xam ni yàgg naa jur ay coup fatal téye sama ngor ak suma conscience dem liggéey yàlla may ma mën na jël coup mën naa jël coup waaye moom na jël coup ci bi incha allah da lay nee na lan ngay wax say supporters comme yow yaay dalal Bombardier fii ci arène nationale pour bu lamb ji jeexee ñu bañ di dajji ay siis di kii parce que loolu sax léegi CNG de lutte bi ak sécurité bi jël nañ ci matuwaay yu wóor bu yeboo nag supporters yi bàyyi ci xel ñu déglu Eumeu Sène ci question. non man ay supporters noobu laa am parce que samay supporters mosu ñu def loolu te je pense que duñ bari yeneen combat yi je pense que du nekk combat bu soof xam ku xam ne Bombardier ñoom ñu ne ci moom ku xam ne mooy seen fu la ñu ne ci moom kon nu mu waxee bu ko bëree moom incha allah yéen a làmb ji gaaw incha allah. léegi léegi dernière laaj loolu. Bamba Bamba Mazor TV nee na présence su Boy wane ni. amul benn ñagas ñagas bu am seen diggante ñaar jàmbaar ñii su may rak lañ maa seen mag du dëgg kon euh, doxaayu mag rek laay doxee du dëgg kilifa laa jëfi kilifa laay doxee su may rak lañ du dëgg amul benn problème jullit laa jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp su may rak lañ su ñamee bis dinaa ci teew dinaa def ko du ma def parce que àdduna amul solo àdduna dafa gàtt du dëgg jaajëf maa ngi nuyu nag léegi ñu bàyyi la nga nga woote maa ngi nuyu nag waa Pikine yëpp ak mbëru Pikine yëpp di ñaanal euh, Ama combat bi muy dugg yàlla may ko ci mu jël mu gagné booy ñaa combat bi nekk ci kanam tamit aussi maa ngi ñaan yàlla may ko ndam soog tamit aussi ñaanal yàlla may ko ndam ak mbëru Pikine yëpp si saa ñëpp maa ngi seen ginnaaw man drapeau Pikine moo ñor. te maa ngi seen ginnaaw incha allah su ma jógee ci nag maa ngi euh, santaat sëriñ bi bu baax a baax maa ngi sant sëriñ bi yëpp bayt rasul bi yëpp bu ma ngéew tam aussi maa ngi nuyu waa AS Pikine jóge fa tam aussi di nuyu waa Casamance bu baax sama mbokku joolaa yi di nuyu tam aussi sama mbokku séeréer yi di ñaanal Casamance yàlla fa jàmm am fekk Sénégal benn bopp rek amul ko xar ñaar waa Gambie tamit aussi aw ma seen fay. di nuyuwaat waa Pikine di nuyuwaat waa Pikine di nuyuwaat waa Pikine aw ma lu dul Pikine fi laa juddoo yaroo fi màggee fi doomu Pikine 100 pour cent laa du nuyu waa raay tamit aussi bu baa du nuyu tamit aussi waa Mbaaw jigéenu Mbaaw bi tamit aussi maa ngi leen nuyu parce que jigéenu Mbaaw yëpp dañ def délégation bu mag jël lu am yëpp boole ko ñooy jàppale ko si combat xool ñu ne tey ni maa ngi gagné lii wala maa ngi gagné nangam ñu jël seen ñàkk yëpp def ko ci. du nuyu tamit aussi seen borom kër yi leen bàyyi tamit aussi ak ñi tamit ñu leen ñu leen ñu leen doole ci loolu maa ngi sant waa mbaaw bu baax a baax a baax ama seen junior tamit aussi maa ngi koy nuyu baax a baax du tamit bis yu mu indi tamit aussi vraiment kontaan naa ci Isaaxa kontaan naa ci bu baax a baax a baax a baax Isaaxa kontaan naa ci bu baax a baax a baax ci yow maa ngi nuyu tamit Modou Gueye bu baax a baax di nuyu tamit aussi euh, maa ngi nuyu tam aussi waa si Singa ñëpp. waaw. na yow boo demee ba ne Eumeu Sène tey rek mooy lépp mën na yow li nga bokk kenn li bokk kenn du la ci kii yow ñoo far.